wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat mbokk yi asalaamaaleykum noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mbokk yi ñu ngi fii ci barab boo xam ne ni ku dëkk tuuba miin nga ko boo ko xamul it dégg ko muy tóokóor ba tóokóor bu sëriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma yaakaar naa ne école bi bari na ñoo xam ne jaar nañ fi tóokóor bi xam ngeen ne barab la bopp bu nawet jotee kenn daawu fi jaar ndox mi gis nañ nam daan mel image yi nga xam ne nii noonu la meloon bu njëkk Touba ca kanam door fi liggéey bu am solo liggéey boobu nag bi màggal gi eh, jotee eh, yenn yi mënta woon yegg dañu ko arrêté woon màggal gi nag jàll na dellusiwaat nañ ci liggéey bi ngir wan leen rek fi nga xam ne fa la ñu toll dañoo njëkk ci tóokër bi nag fekk nañ fi eh, ingénieur bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak équipe dañuy dem mu présenté wu présenté ñu équipe wax ñu fii li ñu fi nam def ak lii nga xam ne tàmbale nañ ko fi déjà. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw man la Mohamed Socé. waaw je suis hydrogéologue de formation je de l'ONAS ONAS laa nekkoon waaw SONES d'abord bi SONES jeexee en 96 ñuy teg ONAS man yóbbu ma volet hydro volet assainissement. bon ma nekk ONAS euh, nekk directeur dans beaucoup de régions bon j'ai fait les centre Kaolack Fatick Kaffrine ak Diourbel bi j'ai la région nord Saint-Louis Louga ak maatam euh, j'ai fait Dakar waaw Dakar laa Dakar laa décroché dama décroché nag sëñ Abibou woote ma ne lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ñëw jaayante si ni ñëpp def fi ñu toll ni nag ñu ngi fii ci Tokor gi am na xëy na yeneen gox yoo xam ne am na am nañ fa luñ fara def mais li ci ëpp ci ñun ñu ngi koy def fii ci Tokor gi ci Tokor gi nag comme ni ko sëñ bi waxee léegi ni mu doon mel ni ñu xam nañ ko parce que wax nañ ñu ko mais bu ñu ko fekkee wax nañ ñu ko léegi nag bi ñu paree ñu war fi def benn euh, ouvrage nga xam ne ndox yi fi nekk yëpp moo koy collecté léegi nag travaux liggéey bu xaw a euh, métti la euh, nga xam ne dafa am plusieurs spécialités ñoo xam ne ay ñu spécialisé spécialisé wu ci ci hydrologie am nañ fi am na fi y a des en la personne de de Badiane nga xam ne yor na tookoor gi mais yor na aussi yoonu daaru di ànd ak euh, maam Thierno ak liggéey nag yu mel nii dafa bëri. Euh, yoo xam ne ay gàllankoor yoo xam ne hygiène ak sécurité yaakaar naa ne ñi nga xam ne ci dara ci lañ jël Alioune Guèye mu nekk fii yor hygiène et sécurité léegi nag pour liggéey ñu affecté ñu koo xam ne moom moo yore lépp loo xam ne moo jëm ci terrassement ci terrassement mooy fay mu yore euh, tractopelle bi mi nga xam ne bu ci kanam la léegi nag euh, am na keneen koo xam ne dafa génn nga xam ne vraiment c'est le responsable des travaux mi moom Momar Diop moom léegi la am lu ko urgence ndar donc ñun ñëpp ñoo fi nekk ku nekk ak say spécialité fi ñu taxaw nii mooy ouvrage bi nga xam ne mooy radier submersible bi ñu war a def pour ndox mi daan taa fii mu bañ fa tee taa wala bu fi daan taa nawet ba nawet bi jeex ba tek juróomi weer dégg naa ndox mi di fi nekk léegi bu tawati bu defee ñett wala ñeenti waxtu lu mu caa gën a bëri ndox mi dem. pour loolu nag rajo bi euh, dafa nekk rajo boo xam ne dañ ko on mu nekk quatre-vingts centimètres de large sur quatre-vingts de profondeur mais biñ ko xolaatee xam ne loolu xëy na war na tuuti pour mën a jël ndox mi ñu def ko euh, ñaari. kanu de 60 mu nekk 120 au lieu de 80 ak benn voile boo xam ne voile de euh, trente la donc boo ko boolee presque largeur bi war a nekk ay cent 150 mètres de large nga xam ne ndox mi jógee ci càmmooy day ñëw wàcc ndox mi jógee ndeyjoor ñëw wàcc ci benn fii ñu teg ko conduite bi def na 1 kilomètre 121 1121 mètres linéaires conduite bi. mu war a dem raccordé wu ci regard bi nga xam ne mu ngi ci station Daaru ci regardu ONAS bi loolu yëpp gas nañ ko sul nañ ko ci mille cent vingt et deux cent moo ci des yoo xam ne sulaguñ ko donc nous pouvons dire que yegg nañ au moins à quatre-vingt-dix pour cent de travaux voilà léegi nag li ci des léegi nga nga gis ñu fekk ñu fa mooy regard yi nga xam ne moom lañ tuddee les regards de visite nga xam ne day tax ñu mën a saytu réseau bi alors regard yooyu aussi tàmbali nañ ko loolu di ko def dem nañ dinañ ci am lu bëgg a mat quarante regards yoo xam ne dinañ ko def te loolu yëpp euh, fas nañ ko yéene def ci diir boo xam ne diir bu peut-être bu raisonnable la li ñu ci ëppal importance nag ñun xëy na du quantité bi mais suñ liggéey li ñu ci ëppal importance ak équipe bi ma àndal mooy qualité qualité ñun waa qualité euh, dañu liggéey ouvrage yoo xam ne fii ba 50 ans. nit waru ko laalaat kenn du ko laal loolu moo tax euh, gaawatu wuñ ci voilà parce que nu suñu credo mooy les délais et la qualité voilà moo tax regard yi nga xam ne xóot nañ ñu def ko un mètre cinquante intérieur ak voile de vingt deux fois voile de vingt muy quatre vingt quarante ça fait quatre vingt dix mètres 90 euh, euh, de part et d'autre donc 1 mètre 90 mooy nekk largeur largeur de regard ak 1 mètre 50 bon boo xam ne regard yi nga xam ne xaw nañ gàtt nag moom mun nañ koo mun nañ ko yemale ba 1 mètre donc minimum te 1 mètre 20 mooy regard yi nga xam ne moo gën a yaatu standard ñun nag ñun dañ regard yi gën a tuuti sax mën a nekk 80 euh, mais pour que liggéey bi gën a yomb saytu bi gën a yomb buñ paree ñoom def nañ ni regard bu nga xam ne moo ci gën a tuuti na nekk 1 mètre yi nga xam ne ñoo ci gën a rëy nekk 1 mètre 50. parce que liggéey souvent kuy liggéey lu mel noonu sa poche ngay xool parce que boo ko yokkee béton bi dana yokku ciment dana yokku fer dana yokk mais Touba ci kanam nee na xoolu loolu lim xool mooy lu baax la gën. kon nag moom ci boppam loolu moo tax mu jóg ne seetal leen ma lu gën ngeen defal ma ko. waaw déggu Dakar bi ñu ñëwee ànd nañoo ngañ ki nga xam ne mooy ICP bi euh, ñu def tour bon ma ziare waale sëñ bi sëñ Abibou ak euh, sëñ Cheikh Abdou parce que ñoom ñoo ma boole woon ak euh, ngañ ne ma wëral ak moom nga seet li nga xam ne mooy assainissement ci dëkk bi ak nan lañ ci mën a seytu bi ñëwee dem nañ dégg daqaar ak beneen euh, taataa boo xam ne ba tey mu ngi nekk ci Gédé yooyu yëpp mëbatoon nañ Touba ci kanam prévoir na récupérer ko ñëw raccordé ko ci réseau bii ñuy def nga xam ne foofu aussi comme ni ñu réglé problème mu tokkoor gi dina réglé waale problème mu taataa yi nekk ci géde yëpp léegi bon léegi maa ngi ci waxtaan ak euh, topographe bi nga xam ne man ma ñëwee ba léegi man moom lay àndal muy bayaan bon defoon na déjà études yooyu euh, léegi nag les études sont disponibles li ci des euh, ñu déglu ñi nga xam ne ñooy yor ñooy ndey mbili ci muy Touba Ca Kanam alors ñu ci wax rek ñu defal leen ko léegi ki nga xam ne moo war a posé si déggoo nañoo ak moom ñëw na fi waxtaan na ñun nan lañ koy defee parce que bëgguñ batterie grise boo xam ne da nga ci def ñetti fan oto di ci yéeg muy naan kërëj kërëj nga di ko dégg dañ dégg batterie grise boo xam ne comme li ma la wax rek à long terme quel que soit le poids du véhicule ak poids poids nu mu diis diis diis bu ci yéegee doo dégg yëngu voilà loolu moo ñu tax a jóg moo tax nag euh, duñ ci yàkkamti dara euh, nañ dem rek qualité ñëw. نبات مثل اسمها بجاي خير ما نبات